hello, hello.

ah monsieur Ndiaye. Ah, Marianne Dupont. ah bah exact. Ah, voilà depuis Sarcelles. Marie Madeleine pas pas Sarcelles. Marie Marie Madeleine 19e s'il te ayca <laughs> donc mu ngi noonu mu nekkoon TFM Zap xanaa ñu wax leen tuuti rek euh, ci ñu bëggul ngeen raté tey ci bis bi ci suñu programme ah, bokk na ci wareef 11 xam ngeen ko ak Adja Degen et puis euh, xibaar yi ak rédaction bi yeewu leen euh, yeew teere islam deux h la koy la ñu koy amal 23h bu leen raté seen émission tabala comme guddi àjjuma bu ne tubarkàlla ñu teg suñuy xiin teg suñuy baax daal di def ay cantu cantu cantu guddi àjjuma loolu bu ci ci guddi gi la 23h bu jotee waaye leen fàtte vingt et heures euh, dina am débat politique euh, ci ay euh, kaddu président de la république xam nga veillu indépendance président Macky Sall day waxtaan ak waa Sénégal donc juste après di ngeen am débat boo xamante ni ak la grande rédaction bu télévision Futur Média ce sera à partir de vingt et une heures d'ailleurs lu ko jiitu vingt heures trente di ngeen déglu discours président Macky waaye diggante dix neuf heures Euh, ba 20h30 heure de temps non-stop d'information ngeen di am ak euh, rédaction bu euh, télé bile seetu bi Bessel dina ànd ak Seydou et puis 15h rediffusion rétro buzz. balaa ñuy làmbaat keneen dañuy accueillir suñu gan tey di ko xamee ni defe naa kenn dootul lim fi mu jaar. Mhm. ak ndaanaan gi mu doon. ay woyam nag loo ca lim rek kontaan ndax répertoire bu riche. Mhm. kooku mooy. Doudou Doudou ñoo ñoo ñoo diggee woon ñoo diggee woon démb ni euh, euh, tubaarkàlla tey dina ñëw wax ci anniversaire bi wax itam ci yeneeni mbir yoo xamante ni euh, daf ko jagleel waa Sénégal e Moussa sa sa baali yaa wulo e wulo ye naa tabu yaa sa baali yaa wulo c'est que Pape Cheikh léeg-léeg day mel ni kuy onk kuy ay ca ñu may ko mu toog maaw ah gan gaa gi doog a dugg si n'est-ce pas bokk ci spectacle bi mais dama ci mosal tuuti c'est dommage que xalam gi xalam gi teelul ñëw déggal bi tam ci la bokk kon da nga bëgg a indi démb. waaw parce que euh, damay damay indi. Euh, traditionnel pur. ok laay njëkk a joué ci Sorano. yii yëpp laay andi waat. morceau Pape nii nii yaa tax. léegi léegi doo ko wéyaale ñu miimeel ma ko tuuti rek. waaw waaw dëgg loolu. la nga te wax rek naa booli naata ak sa booli na ak naa booli yàq yokkal yokkal waay yokk leen sa ay ki ma ni woye ngi ci kolo déggal Sénégal mooy sunu gaal fii mu fi ñëw joow yaa yàq mi. ma ne ku fi ñëw joow yaa yàq mi sunu gaal kenn du ko yàq ana joowkat yi déggal foofu. yaay nabooli naata sa booli naata nabooli yàq yoo yàq. looloo neex na loolu wuy ma il loolu ñëwaat xam nga lu amul ngéwél bëgguma naa booli naa taat sa booli naa taat sa yow xamee yow la non xalaat bëgg bëgg ngéwél na loolu ñëwaat waaw waaw ma ni Sénégal suñu réew la ku fi ñëw te mënoo joow yaa ko yàq dudu wayal dëgg loolu na foofu ñëwaat na yaayu bis bare yaayu bis bare yaayu asal bare waaw mam génne seen bu ñu mënee indiwaat foofu comme ça ñu bànneexu ci da ngay delluwaat tuuti rek ci woyu Mao Cissé ak euh, Doudou Ndiaye Mbengue woy wi yaa ngi koy bu yàgg 82 defe naa Italie la la am na président ah, barki Serigne Bamba. dama dem euh, Hollande euh, ma dem ci kër ay tubaab. wallahi ma dugg ci kër gi dañuy invité dîner mais ma fekk hollandais di déglu euh, CD Doudou Ndiaye Beng ma fekk tubaab yëpp naan e eh, musa sa sa bali ya wulo e wulo ye eh, naata bul sa bali waaye na ñëwaat waay na ñëwaat waay fekk leen encore ñu déglu foofu mbaa rombul deew waaw waaw siise naa booli yax yoo yax jërëjëf dëgëñal ma ko ba ci waa kay jaaxa siise maa dameel maa sama rakk jooju euh, Dudu euh, dañu lay bàyyi da nga tuuti Euh, balaa ñu ñëw nag euh, waxtaan ci yu baax yi nga ñu indi indil waaw en attendant euh, ñuy fondat xalam bi ñu indi tey ndax nag xawaaree ngoog te fi mu ne dañoo nekk ci mouvement su fàttaliku waaw te dëgg-dëgg nag fàtte xaju fi mm-hmm. waaye nag ku fi fàtte ñu war laa mën a fàttali waaw comme dañu toll nag ci mouvement su fàttaliku mm-hmm. Sénégal yëpp ci couleur u fàttaliku mm-hmm. mën nañu dem ci bon coin du fekkee ko sénégalais yi mën cee bàyyi xel donc bon coin ci la ñuy jàll léegi nii ak jaaxa Cissé ma dameel ana bon coin ay <laughs> na